kat gàngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbuub ñi nga am mbégte di amaat mbégte di am kontaante ci rubrique bu mag bi nga xam ni moom la ñuy tuddee pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye def gis àddina wërngël senegal gi ñu bari taxaw daldi ne lii xew ci penc mi laataan ñu ci am lu leen leer faw ñu déglu jëmm ji nga xam ni moom la ñuy wax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mu gindi leen leeral la leen ngir ñu mën a xam fu ñuy teg seen tànk Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala fala tahlamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati ahyunin jazaan bima kanu ya'malun maa ngi lay fay El ci Sa Ndiogou di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yépp di nuyu jiital ci nuyu bi suñu sëriñ cheikh mohamadul muntaha khalifa général de mourid di nuyu cheikh mohamadul mustapha ibnu cheikh sidil makhtar mbake di khalifa cheikh mohamadul amin bara di soñat ñep ci le 23 inshallah allah le 23 décembre mbake kadior euh légui rek ñi ngi doon recevoir délégation sëti sëñ bara yi ñi wacc ñom itam conférence bi ñu wara def mercredi le 21 euh ci mbake kadior ñu tuddé ko sëñ adama gueye ñu ngi koy soñu ñep di nuyu soxna may Mbacke bintu Cheikh Sidil Mokhtar ak jabo njabootu Cheikh Sidi Mokhtar gep di nuyu seigne Sidi mu sering Abdul Asis bara seigne Sidi Ahmed di nuyu Cheikh euh, Abdullah euh, euh, seigne Cheikh Abdourahmane Mbacke mo Cheikh Abdul Asis bara di nuyu Moulay assis gey di ciar bu bax serigne khadim do gaydal ak mbolam waties yep ak kep ku ñuy seetaan dal ci bir réew ak bitim rew di di nuyu nak am ko xamne neena ne nga di nuyu te bëgg na nga di nuyu bu bax nak ndax sama jigen la di. njaboot ci sëñ Sidi Abdou Lahat muy soxna Biige Fall soxna Biige Fall mu sëñ Sidi Abdou Lahat Mbacke mm. waaw boo ko dee nuyu daal xam naa ne boo demee kër sëñ ba mm. ceeb bi dina gën a niin yoon wi dana gën a neex mm, kooku moom kooku mom da sës rek ci sëñ bi te dugg rëkk macha allah waaw kérok daf ma woné mo ma bi daf la seetaan mhm. dafa ree ba sonn waaw mané kon nak dina nuyu tay nak sëñ Sidi Abdoulaye Lahat ñu ngi koy nuyu diko ñaanal yalla mu yag fi te wér amin amin amin ñing koy nuyu waat dem ah. jojo sëñ Sidi waaye di nuyu mm. tamit soxna bi Bigé Fall mm. xam nga fofu faale ne bu ma ñëwee ñoo may mm. toppal waaw sëñ Xaadim Fall ñoom nuyu faaleen yëpp ñom sëñ khadim ah. ak ñëpp <laughs> voilà Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ah. euh Cheikh Bara tay dama bëgg ñu ñëw ci ciowal Baye Mbaye MC mm-hmm. mm-hmm. xam nga euh, Cheikh Bara defe naa ne yow mi audio ya yow mii mës nga fee ñëw parce que déglu woon nga audio ya mm-hmm. te ñun fi mu toll audio yi dafa ump askan wi ñu ci bari ñu ngi ne tekk bëgg nañu <laughs> xam daal ojo yooyu yow euh, loo ci ndax ojo yi ojo la yoo xamante ni bii jaroon na dem way laa jarta dem ndax ojo yi daal lan moo war a nekk ci biir ginnaaw boo ñu ko ndax di nga ñu ko mën a faram fàcceel ngir ñu mën ko xam parce que man boobu ba nëgër yi euh, damay ñammi ñammi te wax dëgg fa yàlla bëgg naa xam li ci ojo ya man ojo yi daal ñor na ma waaw <laughs> léegi nag ya. euh, bëggoon na maa ñëw ci hmm. capitaine Touré capitaine Touré dem na wuy ji waaw moom itam am na lu fa roose hmm, daa yor audio euh, non non moom dafa déglu moo hmm. moo nekkoon ci kii Baye Mbaye nag moom nekkul woon Sowét Bouté bokkul woon ci enquête bi bokkul woon ci dara waaye dafa am position bu mu taxawee muy digganteem ak Adji Sarr sëriñ la ak taalibe waaw ndax yaakaar naa ne lu nit di mën a fen mën a fen hmm. boo wéeteeg sab sëriñ bu la laajee nga wax ko dëgg waaw dëgg bañ nga ko ba sax lépp lépp looy wax tamit dëgg hmm. ab sénégalais dafa am culture boobu hmm. mooy am na ibaadu bu ne ma woon lu tax sëriñ sénégalais yi di waate sëriñ ma ne ko waate wuñ sëriñ lii monnaie locale la monnaie locale mooy mm-hmm. man ak mm-hmm. Sa Ndiogou ak son yi bu bu ma nee barke Serigne Sidi Mokhtar lu ma ci teg rek danañ xam ne lii dëgg la ci man kooku ay ay ay ñu yor ci suñu biir di ko joxante voilà waaw mu ne local maanaam mu mooy mooy waat yi ñuy waat suñu Serigne si loolu mu ne local la waaw si <laughs> su ma bu ne barke Cheikh Issa Diène daan ne tegal ma ci dara bu ne ma lebal ma dama koy lebal parce damay xam ne caaxaanatu mi ngi ci mu ne local voilà léegi nag looloo tax Serigne moom uh-huh. saa bu tuddee dëgg la ciy teg kenn sa Serigne mukk di ci teg fen voilà saa booy wax fenn sax ñu ne la waatal nga mm. lànk ñi xam ne kon da ngay caaxaan uh-huh. kon nag sëriñ bi ak taalibe bi euh, dañoo waxtaan waxtaan woowa nag mm. moo jóg dem ca juge bi dinaa ko mm-hmm. indi mm-hmm. incha allah bëggoon naa nag balaa boobu waaw ma ñaan président mm-hmm. Macky sàll ñaan procureur ñaan Antoine ak mbooleem ñi am baat ci réew mii waaw mbirum masata sàmb ak euh, député Niang boobu waaw muy waa PUR yi ak loolu xewoon assemblée nationale suñ ko mënee teg ci suuf moo gën hmm. ndax ñoom ay acte politique lañ ko jàppe waaye dama ragal dama ko ragal lool mu jógee ci acte politique dem ci acte religieux hmm. te loolu nag mën naa jur jëya waaw juñ jul xam hmm. ndax dafa am jurisprudence bu bu waa PUR am ci waa ci réew mii mooy Serigne Moustapha amoon na fi problème politique waaw ak Senghor waaw ak Abdou Diouf waaw ba ci Abdou Diouf duggee ba dugg ci ba dugg ci waaw mujj nañ Abdou Diouf ci jëmmi boppam réccu na ko ci wàllu yaramam waaw ak ay ay mbir yu ko doon dal yoo xam ne da ko réccu tifaaxan ñi ko jege woon ñëpp xam nañ ko mm-hmm. réew mi tamit réccu na ko ndax ay moor yu dul jeex am na ci mm-hmm. dëgg la ba démb démb démb démb recevoir naa koo xam ne moo nekkoon capitaine mm-hmm. bi nga xamante ne moo jiite woon police keroog waroon a jiite bi maanaam pour waroon ñu jàkkaarloo sa fañ ci mujje mooy ay bakkan yu bari rot ci loolu nag dafa juraat waaw lépp luy jaxasewaat ay xeetu mbirum diine kii sëriñ laag danaa ko song ak daayira beeg sëriñ bi dañ koy teqaleek mm. yooyu dafa mën a mujj foo xam ne du neex kenn boo xoolee depuis la début maa ngi ci artu mm. te Amy Ndiaye ñii bi mii ngeen di faral mm. li mu leen di wax dara amu ci man maa leen ko wax du ëmbut ëmbut tey ëmbut suba xam naa ko xam naa loo ba jëkkëram xam naa lépp bam ne leen daa dem hôpital fanaanu fa fanaan maa leen ko wax man lu dama am loo xam ne bëgguma ko woon a wax sax ngeen teey ci daal parce que dafa mën a mujj foo xam ne neexut te réew mi dañoo soxla leneen lu dul ay xuloo ah, ay xeex ak ay coow mhm. dégg nga ma waaw loolu nag laa doon wax rek Ami sax na ma jéggal ndax man euh, ma ay fi naan dañoo dóor jigéen ju ëmb loolu amut ken mm. ëmb fi te ensemble tamit maa ngi leen di lancer benn affaire mooy keroog gis gi na gi kon war nañoo ratifier kees googu ba bu ëllëgee ku ñëwati ba ko yëkkati du ko mën a yëkkati mm-hmm. ami njaay ñii bi dóor nañ ko mbéj mu ne cas ab bank yaakaar naa bu doon góor mu mm-hmm. yëkkati ban daw da dab waaji bu ko dóoree mën naa defaat kon dos des na tamit ñu def ci règlement bi ban buñ mën a yëkkati dootu fa duggati ñuy def ban boo xam ne même bu nit meree xanaa nga summi sa mbaraakiis dóor ko nit waaye mënoo faa am ngànnaay mm-hmm. parce que ban boo xam ne boo jógee comme ban yi ngénte yi nga yëkkati rek dóor loolu mën naa mën naa indi jafe-jafe nit nag da ngay am lecture di dindi hmm. kon kees gi waratut a mën a yëkkati ko ban yi amul benn ban bu war a mën a jógati ban buy jóg nga man koo jël def ko ngànnaay xeex ceeg ni dañ ko faa war a jëlee bu dee nag dóorantey corpagne moom réew yi ñu gën a développé gën ñoo organisé gën ñoo avancé gën ñoo civilisé ci lépp gën ñoo ragal sax hmm. dañuy dóorantey corpagne ba léegi afrique du sud gi dañ ne seen baaxu maam da cee bokk ñetti xeexi ensemble yi Hmm. waaw da bokk ci aaday réew mi ñetti kurpañ yoy ñuy door ci assemblée bi ndax at mu jot mu am ñetti lo ëpp ñetti xex kon lolu ci Sénégal la bok rew la bokk hmm. kenn mënu ko dindi mais nañ ko organiser no xam ne tamit te moytu fémiste yi ci dugg ba nara indi yeneen problème yo xam problème religieux la moytu ndax tiwaawoon ge dong tay ji ma ngay yëngu hmm. ndax ñaari député yoy ñu japp ta xamna lima len wax nañ ci arrière tañ delluwaat ñi ba ñi libéré len ñu dem ensemble liggéey seen liggéey mu jeex mo gën voilà Mm-hmm. waaw léegi nag balaa maa ñëw ci audio yi tamit. di wax rek Baye Mbaye MC. Mm-hmm. Euh, dafa waxtaan ak Adji Sarr adduna nag. Mm. damay faral di wax ne lu dof bari bari bari. waaw nit ñaa ngi wër nit ñi. lu nit ñi bari bari. Mm. dof yaa ngi wër dof yi. Mm. loolu la wolof njaay naan lu dagg morom jëlee fekk. dëgg la. Sénégal léegi dañuy xeeb ku leen gën di yàpp ku leen man dañuy xeeb xeeb ku leen gën di yàpp ku leen man dëgg la dégg nga ku la bañ te nëbbuloo ko teralal sa jëmm di ko sori. Mm-hmm. ba doo ko jege. waaw. dégg nga ku lay tuumaal nag bul def benn seconde. pour justifier wu ne kon li nga may tuumaal nekku fi. Mhm. voilà loolu nag ay wax la yoo xam ne ci kanam dana firéew ko mhm. euh, léegi. waaw li am solo. te am solo mooy am na audio yu jóge ci Baye Mbaye MC. dem ci juge bi. Mhm. audio yooyu nag yaakaar naa su ma juumul nekk na sénégalais bi njëkk a toog ci tele daan ne am na. artu woon naa ci El Hadj Diouf. ne ko am na loolu Adji Sarr waxal. te mi ngi audio ya te bés dina ñëw mu génn giñaloon naa ko ci yàlla ak sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mi ma yaakaar ak sëñ Baara Mbàkke ne ko bés dana ñëw mu génn yaakaar naa loola moom am na tey mm-hmm. léegi nag lan moo nekk ci audio yi loolu laa bëgg jël ci bañ cee jël temps bu bari di ci wax mm-hmm. parce que ma leeral sénégalais yi mm-hmm. comme si que ñoom déglu nañ audio yi bo voilà xam naa nag tey damay ragal ma pare gars yi tànn biir ah waaw tànn biir audio yi moom am na solo <laughs> <laughs> waaw no wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin waaw Euh, yàlla dafa yéeme. waaw léegi nag Baye mbay mm-hmm. yàlla dafa dogal aji saar nekk ci benn dossier. dossier bi amul menn mbokkam moom ci nekkal. ndax magam taxul mu yeewoo noonu baayam du nitu kaw taax. Mm-hmm. waaw mu am kon ab sëriñ boo xam ne gis nañu koy bundu xataal mu def audio ngir yëg ne moom kii kat ab taalibeem la donte nag miinu ko. ba mu koy def dafa yëg ne mi ngi mel ne man rek ma am sama taalibe te xawma ko ñu ne ma kii rek faamara la mu ne ah kon xam naa faamara mhm. daal di def audio ne bàyyi leen jàmbur bi ngeen di wax du taalibe Baye Niass mhm. acte boobu nag neex Adji saar muy woo Baye mbay Baye mbay di ko woo mais mosuñoo gisante mhm. bi mu demee nag ba mu yàgg waaw aji soxla na Baye mbay ci mbir waaw Baye soxla na aji Baye mbay nag dal di woo aji nag ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan aji ne ko bisub ajjuma sax la won bisu ajjuma waw aji nako. ko. Hmm. Euh, ñuy waxtaan dal baye mbay jek jek rek xuppu ko ci yalla comme ab talibem la. waaw ko na sa bu ëllëgé yow mal xayaa moom nit du la ram yow. nit du la ram waw da ngay dem safara. aji hmm? tit. waw aji tit. lolu mi ngi ci audio bi bu ngeen ko deglu ni ma leen netti la laa leen audio bi ngeen ni deglu hmm. aji tit ne ko sëñ bi ya ngi tit lo way balli ngay def. mu ko ah deug la lay wax ndax nga nekk ci yef ba 14 mor faatu ci. nangam ak nangam aji afalé sëñ bi daal di koy xaw a wàcceewaat tuuti daal ne ko nag àdduna moom maanaam xamal ko daal ne ko maanaam gis nga lii nga nekk. Mhm. boo ko tegee ci yoon maanaam man nga cee am loo xamante ne. Euh, xëy na sax adduna la. mooy ay milliards yi milliards nga ko cee am te mën nga cee noppalu ci àdduna mhm. waaye nag aji na ko man soxla naa ko ma jàppale trop sëñ bi. Mhm. mu bàyyi mbay ne ko man mën naa laa jàppale. waaye nag ne la wóor ne man kilifa laa. doomi cheikh ibrahim la ni la ko waxe sa serigne la munuma nek ci lo xamantene ne xawma lu doon waaw da nga may wax li xew so mako waxe hmm. su ko defee bu ma xamee lan la ak lu mën xew man sama taalibe nga dina la jàppale hmm. waye duma dugg ci lo xamne nak xawuma ko bu ëllëgee ma ci am problème hmm. aji xawa commencé bëgg wax ba yag mu xawa insisté ah mais serigne bi ba duma la wax suma bir nga dem ba ci bir nga reculer yobale suma secret waaw mbay nako ba aji mo na mu ko mag yow ba ci loxol ñess man ma lay jox Baye Niass ma lay yëkëti tek la ci loxo Baye Niass duma la mësa hmm. aji di taccu ci bir audio bi di contane eh ay way man sama war dem tëddi ndax ma sama kontan bi ma teddalé ko waaw ama nag commencé nak am confiance hmm. dal na ah señ bi dal ni affaire bi démé moy ne ko nag lii ma lay wax ni la ko waxé ta bis bu audio yi gennoon xawma ban 1900 lay doon waye bu ngeen ko dégloo bu ngeen dégloo li ma leen di wax rek na ngeen ko japp ni nii la ko dégloo déglu naa ko lu fukki yoon yow diggante démb ak bërki démb pour mën koo këru pour man koo nettali waaw pour nit ñi mën koo mën koo jotal nit ñi parce que xam naa ne boo moytu foofu lañ ci yem ñun mm-hmm. voilà suñ mission yi mën na ci daal mm-hmm. mu ne ko ah lii ma lay wax nag mm-hmm. waxaguma ci sama baay maak sama baay mosuñoo wax ci dossier bi parce que dañoo xaw a rusante sax maak moom faamara comprendre yii mënuma cee wax kon maa ngi si doog a wax ak nit tey bàyyi mbay ne ko waa man war ngaa mën a wax ak man nag aji mu ne ko waa aji léegi nag nii la ko aji nettalee li nga xam ne moom aji nëbb na ko ñëpp ci àdduna waaye wax na ko nag ki nga xam ne moom la yaakaar ci àdduna ak laaxira mm-hmm. daf ko ne mm-hmm. man kat damaa xamante woon ak Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye bi ñu xamantee ma wax ko ko mm-hmm. so Sonko daf fiy jaar suñu cabine dafay fréquenté bi ko ko waxee Sidi Ahmed dem ci ñoom Mamour jàlloo waaw nettali leen ko ne leen gaa bi day dem foofu dafay fréquenté ma toog ay jour Sidi Ahmed jël si ma yóbbu ma ca Mamour Diallo. ba ba ma yóbboo ci Mamour Diallo Mamour Diallo laaj ma ne ma est-ce que Sonko da leen di fréquenté ma ne ko daf ñuy fréquenté. Mm-hmm. Gabi Sow la toogaloon. Mm-hmm. maître Gabi Sow nee na Gabi Sow moo jël ab bic bind ci numéro téléphone am jox ko Adji saar ci loxoom ne ko boo demee nga contacté ma. Mm-hmm. Adji nee na mu ñëw bi mu ñëwee contacté Gabi Sow. ñuy waxtaan ñu xamal ma ne léegi bu fi Sonko ñëwee nang ñu ko peesal. fexeel ba amal ñu man niyoom defe naa moom la tubaab di wax esperma sperme na nga am manium. Mhm. nga jox ñu ko. Mhm. aji nee na ma d' accord. waaw nee na ñu toog ay jour ñuy toog ay jour ay jour ay jour ba yàgg benn bis rek Sonko ñëw. Mhm. bi Sonko ñëwee. dugg maase wu. foofu nag na ngeen ma déglu bu baax li aji wax. te nii la ko aji saar waxee nii. xam naa mooy li ma di wër moom la sénégalais yëpp bëgg a déglu. nii ma leen ko waxee la ko aji waxee mu ne bi Sonko woo. dafa génn dem. waaw bi Sonko génnee dem ma woo gaa yi foofu nag waxut kenn. Mhm. daf ne moom tamit tuddul Sonko nag dana bi gaa bi génnee dem. gaa bi génnee waaw ma daal di woote gaa yi ne leen ah waa ji ñëw na fi. Mhm. ñu ne waaw léegi nag mu ne waaye dara amu fi. Mhm. dara amu fi. waaw ñu ne ko ah bon mu ne waaw parce que moom bi mu ñëwee. dafa choisir quatre mai. Mm-hmm. wallahi al azim aji sar moy wax li ni ma lako waxe ni aji sar mo koy wax mm-hmm. aji sar mo koy wax Baye baye MC Baye baye MC enregistrer ko appel waaw mu ne ko bi mu dafa choisir 4 mai kon donc ñaari fi lañ won ci bir cabine bi mm-hmm. loolu moo taxoon mënuma won ko fora provoquer provoqué gars oh wa léegi yow mënoo ñëw rek eh, eh, mënoo régler expert mu ci guddigi fofu nak nag li ma wax ni bokul ci audio bi moy dama yaakaar ne gars bu aji waxe léegi Sonko dem na dara xewul ñoom dañoo bëggoon aji lijjanti expert mu rek ñoom ñu dem dóor ci Mamour Diallo. waaw aji nag neena na bi leen gaa yi bi ko gars yi ne réglé expert mu noo ko mën a réglé. Mhm. mu ne leen ah non yéen tamit nag daal di mer nee na ma mer. Mhm. daal ne leen waa yéen xanaa da ngeen maa jàppewul seen rakk wala seen doom. Mhm. man jigéen laa ngeen naan ma ay wutal expert mu noo ko mën a wute ak guddi gii. yéen tamit arrêté leen nee na ñi daan waa garaawul. mu ne ma coupé. ma toog quelques heures. ay sax la ko wax nii ma toog quelques heures. Mamour il m'a appelé. il m'a appelé waaw daan may woo nii la ko waxee ne daan may woo bi ma wooyee. waaw ne ma gaa bi dafa ñëwoon foofu ma ne ko waaw mu ne ma c'est sûr ma ne ko c'est sûr mu ne ma c'est sûr ma ne ko ñëw na fi. Mhm. mu ne ma defaral say bagage maa ngi lay jël si. Mhm. aji nee na. waaw ma defar samay bagage oto bi ñëw jël si ma mooy mu ne. c'est pas personne Mamour Diallo moo ma jël si. Mhm. waaye otoom moo ma jël si. c'est pas personne Mamour Diallo Wah non France la kau, waxee ko kii bàyyil bàyyil nit ñi dañuy bëgg déglu de Sandiogou bul bul bul bul kii dara rek ma dem c'est pas personne non non pardon rek ngir yàlla ah, pardon bul ah. nit ñi dañ lay mere sax non non dañ non bul dagg bul non xam naa li ma la non lii mooy lu kenn mënta am man maa ngi leen koy jox bàyyi waaw moo ma lay euh, ah waaw bi bi mu Mamour jël si waaw ànd ak Gabi Sow ak Sidi Ahmed mhm. nee ma dugg ñu dem jëli al médecin bi moom xamul sax turu médecin bi daf na ñu dem jëli médecin bi bi ñu jógee ma. ñu dem Grand Yoff ñu def prélèvement mm-hmm. léegi nag nee na moom boo xoolee nag lii tamit ci audio bi mais dama ko ci remarqué mooy aji Ya, ya- ko ci dugal waaw dama ko ci mm-hmm. aji dafa dem ba soxla ku mu waxal mm-hmm. parce que dafa amoon doute parce que mënta wax ak ay Gabriel ak Mati ak euh, François ak amul kenn ne mën wax ne lii lañ bokk manam mana na xey xey xey tay seen digënté yam fi ba adduna tukki do leen gisanté hmm. kon mënta wax ak bayam ndax nee na mënta wax ak bayam da ko rus hmm. magam xalé la ñu ci wax kon bayam mbay rek la am ci nit ko mëna waxal ci domaine bi lolo tax man ma gëm ne aji lolo taxon mu sawar ci waxtaan wi hmm. parce que daf ko né légui man bay mbay lima jaaxal moy Mamour Diallo depuis quelque temps da fay buy wax ak man day faire semblant comme si que mom dara xewul ci suñu digënté ngon man te lii lépp wa comme manam mom xamu ci dara day faire semblant comme dara comme ko ci xamul dara te li lepp mom moko teug te lima jaaxalit mooy ñoom alaaj fayé ko nañ jot nañ seen wal la wax ñom alaaj ju jot nañ seen wal te man jotuguma sama wal léegi man dama leena a proposer ñu joxuma xaaliss bi ma wax leen ñu verser ko sa compte parce que tamit aji xamna xel mi dafa tay ci mbir ma ngi avancer gaa yaa ngi luy rasu te man jotuguma dara kon ma ngi bëgg perte mo ne dama bëgg ñu jël xaaliss bi ñu def ko sa compte pour ma xam ne lii man maa ko moom bàyyi may ne ko waaw waaw mhm. ni ko loolu d'accord naa ci nañ jël xaalis bi ñu def ko ci te nañ la jox ay milliards parce que liñ la def luñu jar na milliards mhm. mu ne ko waaw man kañ loolu laa bëgg parce que man maa ngi seetlu ne gars yi moom jot nañ te man jotuma mhm. te tamit man fu ma leen waxee waxu xaalis dañ naan ma non lii mënoo cee lii fi am nii situation bi toll yow euh, mënoo cee mënoo cee mënoo mënoo goo laal xaalis mais suñ ma waxee loolu rek dugal sa compte Hmm. bay Mbaye na ko nag da ngay dëgg tabal ci wa waaw parce que nak xalé nga ta ñom ay kilifa lañ waye nak yaa yor acteur bi il faut nga teug tabal ci nak aji. Hmm. bay mi aji nako ha pourtant ñom xam nañ ma nak de. Hmm. de ak ñu ragal ma wax. nit de sa xol suma ma leen bëggee tiitloo damay jek jek rek ne non dama bëgg def ben dama wara def ben live suba wala ki rek ak ak ak Françoise Hélène Guèye su ko waxe ñom ñëppay tiit di wote bay may nako ha ah mu ne ah way xam nañ man sumay wax rek seen nguur gi di daanu. deng ne ko d'ailleurs sax ñom ñepp dañuy teud ak man. ñan dañuy tëdd ak moom ñoom ñëpp la wax maasale ko def ne d'ailleurs ñoom ñëpp dana tëdd ak man jox na Baye Mbaye ab liste boo xam ne da ko ne dinaa ko photo envoyé la ko pour mu mën a génn samay loxo parce que ñoom dañuy ñëw di euh, visiter sama néeg bi lu baree bari te bu ñu gisee list boobu gis seen tur yi tam ñu comprendre hmm. parce que ñoom ñi ngi yaakaar ne benn pitbull xaw ma nu mu ko waxee français ne benn benn benn benn benn pit benn pit lañ yor fii ah mm. di ko jaar di jaar ci kawam defe nañ ne comprendre ma mm. li ñuy def lépp man xam naa ko comprendre naa lépp wallaay mm. nii la koy waxe nii ah doomeeraam sax lañ ma jàppe man waaye nag garaawul man comprendre li may def yaakaar nañ ne nanduma leen dégg nga daan ne ko liste bi dinaa la ko yónnee daan ne ko nag liste bi boo ko gisee doo mës gëm ne ñii dañuy ñëw ci man mm-hmm. mooy liste bi nga xam ne nee na dañuy ànd ak moom dañuy nekk ak moom ci yëfi góor ak jigéen mm-hmm. dégg dina ci nak duma tuddu ay nit nak parce que man. euh dina wax après lutax ma wax ko liste bi kay 16 personnes la. 16 personnes. ala djouf yow xam nga nit ñi yow. ala ñepp la xam. ala hmm. Diouf moom maa ko défier woon. ne ko Adji sar tuumaal na la. Hmm. Adji sar nee da ngeen wessu ngeen avocat avocat avocat juge. ala ah djouf ma la ko waxon nga tok ci bay Ngañ Ndiaye Pam Ngañ. audio ba ma la ba ma doon wax nga diko laaj ala djouf ala djouf diko weddi audio ba ñëw na. su ngeen demee bureau ma xam jàlloo di ngeen ko déglu Pam Ngañ journaliste nga boo demee ci Baye Mbaye MC nga déglu ko mu ne Alaaji Diouf te danaa ci mayaat beneen révélation parce que daf cee boolewaale Abou Thiali Kane abu loolu nag dama ne woon dama koy nëbbu Abou hmm. Thiali Kane ñaari awokaam yépp la ah. Adji Sarr tudd hmm. teg ci ñoom loolu moom teg ci ñoom la ñi ci des danaa ci jox ay ay exemple yu tuuti rek yoo xam ne di nga mën a comprendre maanaam li ci des kenn ki hmm. ab kilifa diine la keneen ki ci des mi ngi ci opposition bi keneen ki ci des ab commandant gendarmerie la dégg nga waaw ñi ci dess nak anam 13 personnes wala 12 personnes yi ci des ñëpp benno bok yaakaar lañ bokk wala mhm. APR bokk benno mhm. bokk yaakaar mhm. amu ci kenn ko xamne timit tamit ku simple nga ñom ñepp ñi actuellement ni ministre lañ waaw ñeneen ñi ci dess actuellement ni député lañ ñeneen ñi ci dess actuellement ni ay DG lañ voilà ci gattal waaw pour nak ma wax la ben signe rek moy amna ko xamne mom fu mu taxaw Mm. aji saar lay xëyee aji saar lay gontoo aji saar lay waxe muy farba muy farba ngom farba ngom ma nag mu ngi ci biir ndax man du ma mës a toog ci tele naan ay diw nangam nangam loolu man mën naa wax ci affaire politique waaw mais suñ ci génnee nag ay tuumaalaatee ak ay yooyu moom man loolu moom ma ko mm-hmm. dégg moom ma loolu quoi man li ma moom mooy euh, bi Baye Mbaye yoree audio yi woo ma ne ma a ah, léegi mbir mi a ngi nii man dama ne ko woon nañ ko jaarale ci yoon ba kilifa diine yi déglu ko wala président de la république lu ko wala ñu jox ko juge pour mu mën a setal ki nga xam ne mooy usman sonk ñu xam ne lépp complot la parce que lii moom leer na te liñ ci jublu woon itam mooy fexe ba nga xam ne deru Ousmane Sonko dina set mënuñu nag ne dañuy setal deru Ousmane Sonko jëlaat ay boroomi kër ay kilifay diine ñu ne mm. di leen ci di leen di leen ci teg waaye nag comme far ba moom dafa dafa dafa dafa dafa jël affaire Adji Sarr mooy mission am. Hmm. fu mu taxaw ensemble loolu la ciy wax. Hmm. maa ngi yëgal ne ko. Hmm. am na ñu bari ñu ñu aji ñu Adji Sarr tudd. am na sax ku ci dëkk añam. waaw bu demee bu dégloo moom dina xam ban tànk lay am na añam am na xombal am na am na nu mu tuddati euh, altu nangal ma am na am na ci koo xam ne tamit. ADD finance lako waxe xawma kan la amna kum woyé itam kirik mom aji kum woyé kiriku kiriku lako woyé ci bir wax waw aji ñoñu mo tuddul sen tur da da leen a ñeneen ñi dess nak dafa tudd seeni tur tifa xam amna ku dëkk kolda amna ku dëkk xombal ñu bari wa ñoñu luñ def ñom dafa accuser né waw non buñ démé déglu ko dinañ ko xam man duma duma nan li lañ li lañ def wala la lañ def waye dal en tout cas ñoñu mom aji sar mo leen tudd hmm. mo leen tudd ci liste bi ne ko liste baa ngi nii ko photo Hmm. dégg nga ma léegi nag far liste bi moom man dama ne ba laa wax comme farba mooy ministre affaire Adji Sarr waaw dégg nga na dem bureau maa xam jàll na ko ko jaral waaw su demee mu déglu su dégluwoo dina dégg tur yii yëpp fukki nit ak ñett la ñëpp deesee ministre député hmm. nee na tudd na leen lam leen tuddee nag xawuma ko waaye bu leen di bu ko déglu hmm. moom dana dana dana dana xam ban tànk lay fecce moom lu mu leen tuddee ah non ma ci dugg parce que loolu yàq yàqum der la te man hmm. dégg nga ma du du ma tudd hmm. farba daal dama damaa xam ne mooy ministre affaire <laughs> affaire Adji Sarr ah. na dem déglu ji parce que Adji Sarr ma waxoon ah. ba mu ne Sonko euh, euh, gaño gi dafa yolom aji daa waxaat yeneen fukki nit ak juróom benn yoo xam ne ñoom itam bu ko digloo mën naa am fi Sonko dëkk la ñuy dëkk waaw bu aji dee wax katu dëkk waaw ñoo soog koy bokk fu ñu taxaw bu dee aji day fen nag wasalaam ñun loolu man dugguma ci loolu léegi nag waaw li am solo mooy mhm. lu am solo li am solo foofu mooy waaw euh, Baye Mbaye MC li mu def mhm. gis bi mu enregistré Adji Sarr ba pare dafa xamalaat Adji saar na ko ah suñ waxtaan wi nag enregistré naa ko wax na ko waaw ne ko nag li tax ma enregistré la. mooy mbir mi mbirum yoon la bu doon maak yow dong ma wax ak yow mu jeex waaye comme daa dugg ci yoon. te ëllëg yoon mën na ma cee woo. damay wut damay téye preuve bi waaye nag na nga xam ne tamit lii nga nekk bàyyi ko nga ñëw ci man ma yóbbu la ci Sonko nga jéggalu ko. muy boole la waat la nga jéggalu nga ñëw ma fat la sama kër ñu dëkk. nga nekk ma la wutal la jëkkër wala ma teg la ci yoon maay sa kilifa. aji daal di daal di buude nangootu ta wax ak moom. ba mu yàgg Baye Mbaye remarqué ne. Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi ngi koy saaga Koura Macky njëkk naa woo Baye Mbaye di di négocier pour audio yi bañ a génn Baye Mbaye Koura Macky audio ma nga fa hmm. waaw am na audio du ko weddi xam na moom woo na Baye Mbaye léegi nag hmm. bi mu mbooyee Baye mbay Baye aji Baye mbay moo woowaat Adji Sarr ne ko aji mun a mun ko remarqué naa ne sa boo yooyu sa gaay yi ñu ngi may saaga rek hmm. buñ ma saagaatee nag audio yi internet nga koy fekk aji ne ko billaahi kenn dootu la saaga yow kay bul dara loolu it mi ngi fi loolu sànniwuñ dara. Hmm. boo seetloo Adji Sarr ak Kaliphone ba ñuy live. waaw Adji Sarr pour wax waa APR ne leen bàyyi leen saaga bàyyi mbay rek moo taxoon mu koy def. te seetlul bi ko Kaliphone na ko ñëpp demaat. Kaliphone bi mu ne Adji Sarr ndax yow bàyyi mbay dalaa enregistré. Hmm. aji neewu ko déedéet ba tey de. Hmm. mukk ci àdduna. du ko weddi. loolu noonu mi ngi fi. bépp kilifa ak APR it bu sol saw dal la. ñëw kar bàyyi mbay baa nga téléphoné ko. naan ko nañ ko teg ci suuf ak lu ma xamut. waaw enregistré nañ la oui waaw am na ko indi deux cent millions. deux cent. deux cent millions teg ko nii ci kanamu baay Mbaye na ko dimbali ñu nga dindi lépp te ñu siñalu leer. waaw Baye Mbaye na ko mi ngi mel ne nga jël quatorze mois yi def leen ci biteel. waaw seen deret ji ne ma naanal mooy deux cent millions yi. ñàkk naa mais lii soxlawuma ko parce que nag El Hadj Ibrahima moo ma jur. Mhm. xam nga Baye Baye Mbaye Lat Joor moo jur ma sekk Jóob ma sekk Jóob jur yaayam. Lat Joor ay maam dammel la ci wet. dip serigne ci wet neexuta neexuta neexut jënd da mel la wa da mel la lab joora jur lab mamam direct mo jur ma sek job ma sek job jur fat job mu jur dégg nga kon waaw bay mbay defut lolo pour ay wanewu dafa fekk ne li aji saar wara def def nako moy hmm. nek ke ci toxi doona dem wax ko sab serigne waye nak bu serigne bi nekkon ci toxi doona wi hmm. serigne be matup serigne aji saar da matup taalibe ndax wax na am deug serigne bi matub taalibe matup serigne mooy recadrer na taalibeem ba delloo siwaat ko ci dëgg te lii bu ñu demee ba mu jeex bañ koy nettali aj saar dina xam ne bàyyi mbayee ko dimbali léegi nag mhm. damaa gis ñu bari tàmbali naan bàyyi mbay warta enregistré ak nangam nangam man damaa gëm ne man de bu doon man a ma def ko ah. te damaa gëm ne lii am dama ko waxoon na woon li am lii coow lii senegal nekk waaw coow lu fi mas a am sëñ Tuubaa ko lijjanti ba Alaaji Malik tey nag ba Baye Niass tey nag coow lii waaw Baye Niass ko réglé mooy Baye Baye Baye Mbaye jël na sacrifice defal Sénégal loo xam ne defalu ko kenn mm-hmm. billaahi wallaahi tallaahi keroog ba mu génnee bureau juge laata muy dugg ci otoom daf maa ba ma wuyu ko mu ma sëñ Bara yaa nekkoon sama seede mm-hmm. ndax bis ba ma njëkkee woon ma audio yi tamit man xel dama ko ne est-ce que xaalis nga ci bëgg mu tàng sama kaw ma ne ko dëgg rek nga ci bëgg mun ne ma ne ko danañ ko ci am keroog ba mu génnee bureau juge daf ma ne allo ma ne ko waaw mu ne ma sëñ Bara bu ma dee dem ajjana tey ma ne mu ne man la ma yen woon yenn naa ko yenniku naa ko kon moom aj yàlla la ci doon wut ak defar feeñal dëgg mm. li am solo te am solo nag mooy dëgg feeñ na mm. aji saar moom dëggal na ne mm. Sonko séqul ak moom dara dëggal na ne itam xaalis la ciy wut mm-hmm. buñ ko joxee xaalisam li muy def lépp film la boo xam ne da ciy bëgg a fayeeku ndax mi ngi naan ko terrain laa ci bëgg bàyyi may ne ko bul jël terrain terrain dafa wóor dañ la mu ne kon ma laaj leen kele amee bàyyi ne ko laaj laaj leen kele amee mu ne kon ah, ma kër loolu mooy li léegi nag acte bii bàyyi mbay def am nañu mu naqari nag ndax ah. buñ sañu dëgg du feñ waye képp ku mu neex mhm. man ma lay ñaan bu suba mhm. so jullee aljuma ba paré mhm. na nga publier bay mbay ci sa whatsapp sa estati wala sa facebook wala foko mëna def ñu estati ko ba Sénégal gépp xamé ko xam ki moy ku bëgg dëgg ki moy ki fekk dëgg na ra rir mu feñal ko ki moy ki Sénégal na rona tak mu mu di lijjanti d'accord xamna nak Sénégal gépp ñi ñi ñi ngi xam ci lima wax ñi ngi xam waaw légui nak gis nga enregistrement bi waaw bu ndaw la bu ndaw ban mooy bu waaw yàlla daa ñëw. waaw yàlla dafa toll ci leeral. Uh-huh. gis nga enregistrement bi aji saar di waxal boppam ne Sonko si ko lëng man dara lii ma nettali. waaw bu ndaw la daa am beneen bu ko gën a original. Uh-huh. gën koo leer gën koo tegu. Uh-huh. te ñi doon complot. ñoo ko enregistré nte. enregistrement boobu nag. moom itam mi ngi fi. waaw waaw xam nga nuyu la deux. waaw dafa am ñoo xam ne xam nañ ne ñoom sonk la ñuy comploté. waaw mais dafa am ñu bokk ci biir te xamuñu ne. xamuñu ne Sonko la ñuy comploter xamuñu lu xew. Mhm. mais biñ gisee yunnu yunnu jee ak coow li xam nañ naa fii daal am na luy waaj a xew. waaw ñu jël ñu teel a jël seen i défense. am na ci koo xam ne moom bi mu xamee ni lii wóor. waaw mu laaj gaa yi lu ngeen di def ni ñu ne ko non bu sottee nga xam ko. moom dafa décroché enregistrement commencé appel bu buñ ko ci woo enregistré na ko message bu buñ ko ci bind enregistré na ko. Mhm. su ngeen seetloo. Mhm. ginnaaw bu mbir mi jeexee kooku topp nañ ko. dem këram dugg fa Babacar wax na ko. Ah. yàq nañ fi otoom hmm. daw na fi di tuxu hmm. nit ñi naan nit ñi naan nit ñi naan luñ koy toppee liñ ko doon toppee mooy enregistrement yi mu yor ci téléphone am hmm. enregistrement yooyu lañ ko doon toppee bëgg koo nangu enregistrement yooyu nag maa ngi dalal xelu gaa yooyu doon kompaloo ki doon ah. woote naan ko meew kay kii bi euh, kayit bi kañ nga ñu koy jox waa ji ko noonu semaine prochaine mu ko non non non non way ban semaine prochaine waaw nekk mu ngor mu ne maa ngi ñëw ngor jël si la mbaa ñu ko mais est-ce que mën nga maa wax li ma dugal nii lan la quoi mu ne non non téléphone wóorul nan dem whatsapp ma wax ak yow ki doon ah te boroom numéro bi jeexee 60 xamal ne affaire bi génn na ci loxoy kooku mi ngi ci loxoy gaa yu bari man mii déglu naa ko. Hmm. dégg nga. waaw jëratul nga koy topp di ko jéem a dóor ak a rey. affaire bi moom bu soobee yàlla juge rek ak dëgg jot ak dëgg feeñ. dégg nga jërëjëf Cheikh Bara. benn minute dinañ ñëw ci beneen yoon ci capitaine Touré ak yooyu. jeex na temps bi jeex na tàkk Cheikh Bara. Hmm. kon tey ba émission audio yi la. Euh, Cheikh Bara hmm. joxel programme bi rapidement. bi mooy. aslem eh, ñi ngi teungé ci ta seigne Mansour su 48 hmm. euh ñu ngi su 48 ci ta seigne Mansour waaw fofu dañuy fajj hémorite muy séré ballonnement bir buy joy boy dem toilette ngéral rek di génn bob buy metti geex gu bari ñaka mëna lek ñak yoy yëpp dañ koy fajj hmm. ak sangat ci ubbiku ak bayre ak ndjaré ak yu mel nonu yëpp hmm. samedi ak dimanche ñi ngi aslem 2 ginnaaw école ma jëy sàll lundi mooy journée bi nga mm. xam ne mooy moom lañ jagleel mbirum rab boo ñëwee ci bés bi dañ lay fajal rab ci même jour sangat la rab yi dañ même bu la tee am jëkkër bu la lu mu la mën a teg rek incha allah boo ñëwee ñu dindi ko lundi ak mardi tamit mardi ak mercredi ñi ngi waat aslem 2 ginnaaw école ma jëy sàll ak jeudi ci suba si euh, lundi bi balaa kenn départ di ñëw da ngay woote téléphone ne damaa bëgg a jël rendez pour faju rab ñu jox la jour bi ngay ñëw parce que niñ mën a jël ci ay nit du bari parce que jour rendez-vous la mais yeneen jour yëpp moom comme neex nga ñëw lii ñuy faj Dakar muy mm. hémorroïde ak cité yooyu ak ngóora dañ koy am ca Mbour mm. boo demee ba ca Ossan ba nga taxaw ci buntu Ossan bi boo wootee rek ci wetu Ossan bi foofu la kër gi gi ñuy joxe garab yi nekk bu dee Thiès ñu ngi wetu kër Mbaye Diouf boo fa taxawee moom itam boo wootee ci numéro Thiès baa ngi noonu mm. tamit tëli sëñ Bass Abdou Khadir euh, euh, tëli gede ba wetu ko sëñ Bass Abdou Khadir boo fa demee moom itam foofu am nañ fa barab boo xam ne boo fa demee am garab euh, di wax nag audio yi nga même baat boobu ñun yor nañ ko at ak lu topp kenn mësu koo déglu juróomi nit a ko déglu ci réew mi ak lu wax ji bari bari jële jógee na ci suñuy loxo nag dem na loxol juge Assane Mesere moom li mu déglu woon waaw dama ne ku la wax juróomi nit <laughs> juróomi nit laa mën naa laa waxal juróomi nit ñooñu koy ci Sénégal ñoo ko déglu ah. waaw ngóone bu Dakar Dakar bës de defe naa déglu na ko ak Pape Makhtar Sa Moussa bi nekk 7TV ak man ak baay Mbaye ak ku ñuy wax Abdou Khoudous ak si ñooñu daal ñoo ko fi déglu. Assane Mesere dama ne la ku la wax laa wax déglu na ko wax na la leneen léegi nag waa Baye ma déglu ma wax la foofu saa njóogu non non yoon dafa sew audio yi. jóge na ci sunuy loxo. waaw nun dem na ca loxol juge. waaw nag bis bu bu tasaaroo. waaw yéen la waaye du noonu. ndax noonu ay sëriñ lañ ay youtube ay dugal yi fa toog tas derub jàmbur yàq derub jàmbur loolu du suñ itte mhm. jot ngeen ca nag ëllëg fu mën a yegg yéen a waaye du noonu wasalaam transféré wuñ kenn suñ yoon nekk voilà kon leer waaw di fàttali leen numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis sa aajo faju kon Assane Bes Besere dinañu wax ban audio la déglu <laughs> léegi kay. ayca ah. jaajëfal nañu leen Laji Sa Ndiogou Mbengue ak eh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci jaajëfal également ñi mu àndal ñoom eh, Baye Alek ñooñu eh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñu dem régie jëli victime du net.